asalaamaaleykum yéen mbokki safo di seen ci 24 actu ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziare ci weer bu sell wu màgg wu tedd wi ñu nekk tamit weeru safar ku nekk xam ne ñoo ngi ci wàccaay màggal Touba fan yi néew dox su ndugal yi di màggal ñu fas yéene ànd ak yéen dem ci li nga xam ne ñooy jaaykat yi ñu fas yéene leen a tàllal suñu micro ngir taataan seen i kàddu lal leen ana nan la ñuy waajalee li di seen màggal Kaolack laa jóge ñëw Touba man depuis trois jours mun naa laa fi ñëw waaw man nag maa ngi ci boisson yi ak ci ndox mi daal ndax tuubaa day xaw a tàng te ku nekk daa am spécialité donc ku nekk nu la neex ngay duggee Touba rek voilà moo tax man may ndaali ndox ndox yi Ndaraam Escale la quoi mais ma ñëwee fii nag jënd naa fi ndox tamit do waaw waaw ñu ngi sant de ñu ngi sant de xanaa glace moo xaw a jafe rek fi ñu koy jëndee xaw a sori tuuti quoi waaw ñu ngi sant de waa jaay bi moom nit ña bës boo xëyee rek nit ñi daal ñu ngi gën a yokku daal nit ñi daal ñu ngi gën a yokku daal ñu ngi ah macha allah Touba moom jàmm daal lañ fi gis ñu fi nekk ñu ngi liggéey te am nañ si jàmm vraiment gisuñ fi benn jafe-jafe nag. waaw waaw comme lu ma la wax rek ñu ngi sant rek xam nga bu ñu jogee fële bàyyi suñu yitte yëpp ñëw Touba pour pour dara la quoi waaw ñu ngi sant waaw mënagul ñoo wax dara ndax màggal gi des na mais daal nii muy demee daal bu dakkul moom ñoom mun nañ see mun nañ si am ay xéwal daal. waaw taalibe moom lu ma leen yokk du taalibe yi sax général. mooy ñu gën a liggéey rek ku nekk daal ci foo nekk nga gën a gëm gën a liggéey parce que ñi ay étudiants la ñii lu nekk la ñu bari daal ñu ngi toog di xaar ku leen defal te loolu moom jàpp naa ne war na fee mun a dëñ waaw ku nekk daal na góorlu rek liggéey lu jëmale réew mi kanam réew mi ñun ñëpp ko bokk muy murit beeg tijaan beeg euh, xaadir beeg laayeen beeg tuubaa gi ñëpp ko bokk sëñ bi ñun ñëpp a ci am cër voilà maa ngi gërëm maa ngi leen di gërëm nag sant ñëpp màggal gi ñu ngi koy waajal baax moom macha allah ñu ngi koy waajal baax a baax a baax ñu baax ci lépp ci njaay lekk lépp waaw njaay mi waaw tax na nag ñu ngi soqe ko ndànk ndànk rek am nañ ci yaakaar lool nag ma bagage yu bari dana wàññeeku incha allah am na ci yaakaar lool bagage yu bari dana wàññeeku incha allah waaw depuis lundi pour le moment nii dañuy jaay ay dàll ak ay tubéy yu ñu dox bu baax alhamdulilah moom dëkk moom Bamba moom alhamdulilah moom fi la fekk baax waaw fii moom yaakaar naa ba doo fi ñëw mukk di sonn moom ñu ngi gasandu aussi tamit ñu ngi ñuy bendeel bu baax a baax wax dëgg yàlla waaw ñooñu dañoo dañoo nangu te liggéey rek yaakaar lu ñuy def nii li rek xam nga daan doole bu ngir am lu ñu yóbbu suñu kër yi yaakaar naa bu doon def ni ñun rek yaakaar naa du metti daal waaw xale moom waaw di leen béggee rek di leen jaajëfal nga xam ne yéen a ngi def lu rafet maa ngi nuy aussi tamit fi ma dëkk mooy Dakar di nuyu sama yaay bu bëree bëri naa